mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax ñëwaat fii ci 30 minutes chrono comme ni ñu koy defee alxamis junne bu vingt 21 heures jotee ci solution info TV di gërëm El Hadj Modou Diouf Abdou Top Ablaye Fallou ñi nekk ci régie bi Omar Bun Xattaab Gueye di ànd ci kàddu gi ñu fas yéene nag wax ci ñaari point yoo xam ne dina leen ko junj bu ci njëkk. mooy grève bi fi presse bi amuloon dinañ ci wax sunu xalaat ak ñenn ci press bi bëgg a taxaw taxawaayu opposition surtout les patrons de presse mbir mi nag tàmbaliwul tey dinañ ci expliquer lu bari dina ñëw ci les propos polémiques de Ngagne Demba Touré te ñun ñu jàpp ni les waxul la li ñëpp di wax ci suuf ci Pastef moom la wax ci kaw dinañ ci indi ay exemple am lu ñu ci wax bu ci yeneen xajee nag ci actualité bi ñu boole ko ci ñu njëkkee ak euh, press bi ak liñ fi xewal loon lu tax ma ni patron de presse bi wala press bi ñoom ñooy porter le combat de l'opposition niñ mujj a doxalee rek ci journée boo xam ne dañ ko jagle jagleloon taskatu xabaar yi ne dañuy xëy noppi taxlu gumba ci lépp loo xam day xew ci réew maanaam xibaar kenn du ko génne ci li ñuy xool ak li ñuy dégg ak li ñuy seetaan loolu nag ñu def ñu am ci droit mais mu laaj njàngat parce que bu ñuy wax plan d'action maanaam plan bi gën a radical wala mesure bi gën a radical mooy mujj lu tax fi ñu waroon a mujjee ñu njëkkee ko parce que bu nee grève da ngay artu def avertissement yëglu ñu naa ñi mer bu de bu ñu deful lool nga ni ah xaar ma organiser ay marche wala ma xëy def éditorial boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy bokk maanaam façon yu mën a xeexee ci presse bari na mais xëy rek ne journée sans presse pour man li ci jiitu mooy te wax naa ko nit te bi ma déggee ku mel ne Abdou Mbow wax. dégg ku mel na ma jàmbal dégg yeneen journaliste yi wax jooju moo waxoon dañ ko dëggal mooy jubluwun ci lu dul ñu ne nguur gi falu na ñeenti weer lu mës a am Sénégal am na fi parce que te nguuru Macky Sall am na fi ba jeex mais amul journée sans presse parce que presse bi daan na nappe di yëglu te ci jamono boobu la journée sans presse gënoon na jekk mais taxuloon ñu def ko parce que gis nañ ñu tëj fi Walfadjri tëj fi ay journaliste dem ba sax loo xam ne ci àddina bi li muy am bariwul maanaam nangu licence média Moussa Bokar Thiam ak nguuru Macky sàll def nañ ko Walfadjri mais taxuloon presse bi ne journée sans presse am na ñoo xam ne sax dañ ko yéene woon Walfadjri ak ña fa doon liggéeyi waxuma la rek tëj wall faj Walfadjri mais tëj ay nitu Walfadjri wala ñu woolu leen ci yoon maanaam bu ñu doon lim tey du jeex ay menaces ay persécutions ak lu mënti doon teg nañ ko ci journalistes yu Walfadjri mais taxul woon ñu egg ci journée sans presse am na sax ñu dem ba jàpp ni li Walfadjri di def nekkatul di journalisme maanaam jël Walfadjri ak kër ga mu àndal yépp bool leen ci benn sac bool leen ci benn sac na ñii li ñuy def nekkatul journalisme yamul ci lool ñu jël ab jigéen mati Sarr Niang ci post Facebook journaliste jël tëj ci kaso bi Coro Mandela tëj ci kaso bi mu àndoon ak ëmbam ñu boole ko ëmbam dugal ci kaso diri nañ fii ab caméramanu wala journaliste su Seneweb diri diri ay takk der di ko diri loolu am na fi xëy nañ fi outil bi journaliste yi di liggéey di internet ñu xëy tëj lépp loolu am na fi taxul patron yu jug ne dañuy def journée sans presse ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey buñ doon lim du jeex lan moo waral nag yooyu yëpp xew fi ñu muñaloon ko nguuru sàll Sall les patrons sëñ Saliou Gueye waxoon na ko fi nee na bari na fi média yoo xam ne dañuy recevoir xaay trente ba cinquante million daan nañ ko jëlee ci nguuru Macky Sall kon tey jii li naan ku lëkk wala nga guux doo yuux kon seen noppi googu ak seen seral googu. loolu mooy li ko indi woon loolu nag moo doon tax bépp salbuloo ak liggéey bu salte bu bon bindoon gis ci presse bi da nga daan yéemu xool ni lii lan moo ko waral maanaam lan moo ko waral mbiri Adji Sarr mbiri imam Ndong eh, ba imam Ndaw mbiri keneen ak keneen dangay gis sax ñu woon nit ci yoon ñu xëy ab journal xëy bind ci moom PV bi di ko chargé di ko chargé comme du n'importe quoi coro dund na ko nga xool ni même ñu bari tey affaire Pape Mamadou Seck force spéciale keneen keneen euh, ñu leen di chargé ngay gis ay journaux yoo xam ne au lieu ñuy joxe information mais dañuy jàppale les enquêteurs pour que ñi gën di teg fitna ci nitu Pastef yi wala ñenn ñi juin 2022 bu ma juumul mooy bi ne liste Yewwi Askan Wi liste Yewwi Askan Wi bi Ousmane Sonko jiitaloon du dem élection député yi suppléants yi ñooy dem opposition bi woote bi mu wootee ñetti nit faatu ci ñetti nit faatu ci ñu waroon ko ñaawlu mettit lu ko parce que benn sénégalais bu dee rek dafa mel ne sénégalais yépp ñoo nekk ci dëj bu doon ci réew mu normal la nekk ci jamono mais dama gis tey jii journaux yi bari yoo xam ne tey jii ñoom ñoo fi nee naan journée sans presse xëy di kañ général Moussa Fall. naan ko guerrier la ngand la force reste à la loi parce que rey nañu ay doomu Sénégal ay ay journalistes war ko métti lu mais ñañu jàpp ni ñoo def répression ñu leen ni kañ jël mu général Moussa Fall tekk à la une nga dem ci seen post Facebook yi waa nitu APR jël général Moussa Fall def ko à la une presse bi waroon na ko dénoncer ci ay doomu Sénégal yu ñu rey mais presse bi am na ci ñoo xam ne bu ñu mësaana sax rey ay doomu Sénégal bu ñu xëyee. la ñuy bind mooy rey gi dañ cee ànd loolu looluy dëgg loolu dafa am ci presse bi maanaam fàtte xaju fi acte yooyu yëpp ñuy joué mu mel ne kon la sëñ Saliou doon wax dëgg la daf ci am ñenn ñoo xam ne daa am lu leen doon jox di leen ko cërale di leen baal impôt goo xam ne réew mee ko moom mais aussi lan war a fay ca TDS weer wu ne un million fukki weer ak ñaar yi du fukki million ñaar fay ñu ko bor yooyu tey ji njatt leen xoj leen ñu waroon ko dem maslaa wala ñu waroon ko dem waxaale nguuru Macky sàll daanu te balaa mi daanu dafa am benn acte bu Macky sàll joué mooy da leen woon ne da leen di baal dinaa ci wax ministère des finances ji nga boobu Macky Sall baalu leen te xam na ni du leen baal mais boobu xam lu mu bëggoon maanaam teg dara ci seen loxo ba bu élection yi jotee presse bi jàppale ko ci sàcc élection yi maanaam Macky Sall boobu nar na reporter élection yi boobu nar na toogaat ci boppu réew mi parce que yooyu ay pexem la woon parce que bu askan wi jugul woon conseil constitutionnel taxawul élection yi ba tey ji du am parce que mois de septembre lañu doon wax ba tey ji du am léegi nag une certaine presse tey ji am na fi ñoo xam ne ñu ngi coow di wax mais report bi ñoo doon jàppale le président Macky Sall di justifier report bi jour bi Macky Sall waree génn pour ñu reporter élection yi fàttekul liku leen yenn plateau télé yi wala yenn toogaay ci rajo yi ngeen déglu yenn ci journaliste nan lañ doon waxee maanaam avant Macky Sall di wax report ñoom ñi ngi justifier report bi loolu defuñu ko parce que Macky Sall lañ bëgg mais daa am lu ñu bëggoon ci Macky Sall mooy ñàkk fay impôt gi nekkoon te du dëgg ñu continuer di ci ne ñàkk wax dëgg gi ñu continuer di ci ne boo dellusee seetee ci procès Adji Sarr amul am na sax ba ñu bari bi ñu jàppee Ousmane Sonko xam lu mu doon wax réew mi mën naa am jàmm fekk Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi réew mi day am jàmm maanaam ñoom dañ doon encourager état bi pour que ñu bàyyi Ousmane Sonko ci kaso bi dem na ci ba am ñu jàpp ni mais Diomaye sax bi ko Ousmane ko tànnee warul doon candidat maanaam ñu toog ci seen plateau yi di théoriser naan noo Diomaye mënut a bokk te ñoom ñi lay wax ni Diomaye mënut bokk mos naa ci def chronique fii ma ni leen juridiquement et politiquement li tee jomaay bokk ci élection présidentielle amul ma défier leen fii mais am na ay journalistes yoo xam ne tey jii danoo jàpp ni ay ndaanaan lañu mais ay naafeq lañu jamono boobu ñoom bokk na ci ñi doon jàppale nguur gi pour ñu reporter élection yi pour Diomaye bañ a bokk dem leen seen plateau yi. kon li ñu doon def nekkuloon di journalisme li ñu doon def mooy dañ doon politique di ci jàppale seen i patron léegi nag ci patron yooyu la ñuy dikk patron yi waa CDEPS ñoom ñi ngi wax naan dañuy xeexal pour la liberté de la presse pour que presse bi gën a mën a def liggéeyam pour que ñu bañ a salfaañe ak ak yelleefu press bi mais yow mënoo nekk ci position de faiblesse ba pare di def kii pression lu tax sànq ma ni la combat wu opposition bi dañ ko bëgg a porter loo presse bi Bougane gay dani moo moom des médias Bougane moo jiite gëm sa bopp depuis Bougane di politique ba léegi wala bu nguur gi falak léegi xool leen la ligne éditoriale de des médias wante dëgg nga xool ligne bi rek ak doxalin wi ak tëralin wi ak traitement bi ñuy traité mais loolu la lay nuru nga ñëw ci Mamadou Ibra Kane ak e mais lan lan deful moo moo jiite lan xam nga demain c'est maintenant mais avant sonk ak Diomaye di falu lan lan deful pour que Sonko ak Diomaye bañ a falu moom mu dem na ci sax ba dem jàppale amaru Ba nga xool traitement information ci groupe bi mu bokkoon naam nee nañ jugee na fa sax waaye benn tànk dafa nekkoon ci biir benn tànk nekk ci biir nga ñëw tey jii fu ci mel ne groupe Futurs Médias Youssou Ndour fekkee ma ci boole politik nga ñëw tey ji ci yenn journaux yi am na ci journal bu nekk fii mais journal bu jege woon Macky Sall ñu bari xamuñu ni directeur journal boobu siwul de mais ab maire la maire te bu ma juumul ci list benn bokk yaakaar la nekkee maire te nee na directeur publication la bariwul wax nag ci journal yi bind la bokk jege loolu présidence nga ñëw tey jii ku mel ne Babacar Dione ñun la lii quotidien tam nekkoon 2STV mais Babacar Dione lan la deful pour charger Diomaye ak Sonko dem leen 2 ngeen jël ay vidéom ñii ma ngeen jël ay vidéom ngeen teg ni mu doon waxee pour charger Diomaye ak Sonko même élection yi bokk na ci sax ñun doon yónni pour que mi xajamal pour que ñu ne Diomaye ak Sonko mënuñu bokk biñ tasee parti Pastef moom dafa jàpp ni sax loolu normal la maanaam ree Pastef ci paysage politique bi bañ nag du bëgg na mu nekke woon deux s daan ko bindee ci li quotidien loolu la continuer ba tey li ñuy def du journalisme politique la dañuy politique léegi nag comme ñoom dañuy politique mais état bi da leen di traité comme ay politiciens mais du leen traité comme ay journaliste wala ay patron de presse mais même bu dee patron de presse ay patron de pression lañu parce que lan la nan mettre pression état bi pour que état bi dellu ginnaaw defal nañu liñ bëgg parce que nan doon doxee ci Macky Sall ba làgg ci mu noonu lañ jàpp ne noonu lañuy doxee continuer di ko liggéeyee mooy da ngay ñëw ñu napp la dóor la ay dàll comme juboo léegi nga ne non gaa eh gaa yaa ngi sama kaw xaaral ma xool nan laay liggéey ak ñoom di leen jox ay convention di leen bali impôt pour que ñu mën ma may jàmm loolu nag la Sonko ak Diomaye nanguwul te waruñu ko nangu parce que li leen ñii teg bis buñ ko nangoo mais bu boobaa na nangul ambulant yi na nangul ambulant yi ne mun ngeen taxaw ci mbedd fu leen neex Jakarta mun nga daw fu la neex bis buñ ko mayee ñii bis buñ ko mayee ñii mais nan ne littoral bi ak ña fa daan tabax ak ñi sàcc suufu réew mi jaay ko nan jàpp ne lan doon def lu normal la na leen ko baal mais ñii di ay patron de pression mais lan la ëppale le sénégalais lambda wala kii yor cantine di fay impôt wala kii yor immeuble am di fay impôt kii yor entreprise am di euh, fay impôt lan lañ ëppale commerçant bi mais ñooñu ñëpp tey jii ñu taxaw mais taxawaayu politique lañ taxaw politique. looloo tax du ma ne patron yëpp ñooy politique mais ñi mu tudd mais seen lien ak politique dafa am Madiambal Diagne mais day politique Madiambal Diagne Macky Sall la àndal nekkoon conseiller am di ko jàppale entreprise bi ñu tegoon ngir salfaañe Pastef tas ko mais ma Madiambal acteur la ci woon artisan la ci woon. di chargé Pastef lépp lu ñu war a bind ci lu bon ci Pastef ak Ousmane Sonko mais ma Madiambal moo ko jiite woon te ni ñu ko doon defee dafa grand Madiambal da koy bind ut ab présentateur revue de presse am boo xam ne bu xëyee moo koy révélé am na koo xam ne bu xëyee daf mel na ma jàmbal danaan ko teel ma ci lii waxal ma lii maanaam bépp chronique bu Madiambal def presque revue de presse bi yëpp loolu la koy jagleel man mos naa gis benn waay di def revue de ñu xëy boobu maa ngi def revue de presse fii ci Walfadjri mais presque journaux yëpp bind ci Sonko bind parce que am na déclaration bu Sonko defoon ñu xëy ñëpp bind ci presque li ëpp ci journal yi mais waa ji def na revue de presse ba mu jeex tuddul sonk maanaam day zappé fu mu bind Sonko rek day zappé te fépp fu gis ñu bind nañ ci Sonko ci lu bon luñ bind ci Sonko ci lu bon lay wax kooku journalisme lay def mais ça veut dire qu'il faut être parce que lu mu dee dee bul la joxe ay journaux nga war a def revue de presse di nga def agencement di nga agencé xool lan la nit ñi soxla ak lan moo ci information ak lu ko doonul mais lépp loo xam day favorable ci Sonko doo ko wax mais lépp luy bon ci Sonko yow di nga ko wax sa revue de presse loolu revue de presse la te bu nu waxee ñu naan ay docteur sangam en communication docteur sangam sangam la il léegi nag Oudé ni ma la gisee noonu la lay ëwalee mooy le yow nga jël sa lépp ni non dama koy xeexe benn nit nit kooku suñu borom di ko tàggat di ko tàggat di ko tàggat ba nit kooku tey jii li nga soxla nekk ci loxoom da ngay matlaa sukk say oom def profil baax waxtaan ak moom parce que nag du nguur gi moo leen ameel impôt du nguur gi moo leen ameel dara ñoom ñoo ameel nguur gi mais nag boo amee ameelee nit da ngay neex deret mais yow jël sa entreprise képp koo xam ne da nga jàpp ni rek. yow dafa bañ Sonko même man mii tey bu ma toogoon tey ñaari émission di xas Sonko sax mu woo ma signal ma contrat na ma noo toogal yow moom ni nga ko téye baax na mais loolu du liggéey wala nga jël benn plateau ñi wër plateau bi yëpp benn nit lañu saaga yow xoolatoo professionnalisme xoolatoo képp ku nekkoon professionnel sax sa média dàq nga ko képp ku taxawoon sax nga jàpp ni kii day defaan Sonko dàq nga ko képp kuy saaga Sonko naam dala daan saaga man gis naa ci koo xam ne jël na nit ku bees nit ki toog di xas Sonko ku ko neex saaga ndey ñëpp lay ñëpp lay saaga dem na sax ba kilifa bi ko jël nii moom daan na fi saaga kilifa bi naan ko da bañ ni kurus ngay bañ mais foo toog tey jii waa jël na ko mu dem toog ci plateau te moom bokk waa jooju mu jël bees tamit xaj Sonko jëm waa ji daan na dem bay dugg biir néegu sëyam sax ci loo xam ne ñun ñi ñemewuñ ci dugg keneen ñemewu ci wax mais ci ñàkk tegg nag reewande rek mais comme waa ji wëlbatiku na léegi mi ngi xeex système bi ak ñoom sonk mënu ko non kaay toog mais noonu du liggéey léegi nag man ni nga ma jàppe noon laa lay jàppe léegi ñoom ñu état bi léegi no croiser bras noppi am na ci koo xam ne bi Sonko ak Jomaay faloo maanaam jour bi ni def Sonko première ministre may ma koy déglu édition spéciale tuddee Diomaye ak Sonko booy yi booy yi maanaam émission presque deux de temps booy yi lay wax quoi booy yi du n'importe quoi manque de respect pour quelqu'un qui est président wala quelqu'un qui est premier ministre te jàpp na ni moo gën a professionnel ci journaliste sénégalais journaliste bi doon def loolu nan non Sonko warul nekk premier ministre warul nekk premier ministre léegi ñu fal Sonko premier ministre mun ne non avec sa forte personalité est-ce qu'il il peut euh, travailler avec Diomaye est-ce que mun na cohabiter ak Diomaye commencé du n'importe quoi maanaam bi mu falee Sonko ak Diomaye rek ci lañ commencé du dóor indi affaire général kande pour déstabiliser nguur gi foofu lañ tàmbalee général kande ci loo xam ne tey mën na yëngal réew ci lañ wooye journaliste la turbine bi woo dirpi bu le quotidien bi ci ñoo xam ne dañ ne dañoo bëgg seen réew bëgg lu janeen réew bi nguur gi ne capp semaine bu njëkk bi rek nga dóor benn bomb ci général Kandé commencé tirer tiire tiire tiire tirer mais ñii nguur gi bu bëggoon jàmm sax du ko séq ak ñoom parce que ñoom ñoo bëggul jàmm parce que jàmm ñaar ñoo koy dox ñi fallu nañ mais may leen état de grâce te loolu lépp lu ko indi mooy ñi jiite presse bi comme li ma la wax sànq. Bougane day politique gëm sa bopp Youssou Ndour fekkee ma ci boole réerewul ak Macky Sall Babacar Dione politicien bu ngande la politicien bu ngand la li Sonko doon wax naan mbëkkkat yi mais mbëkkkat yi danoo mbëkku rek ah yow ju nga jóge 2S jël sa journal teg journal bi dem ba ji Kigali Sonko dem Kigali ngay désinformé un professionnel mais même booy wax informé waxal dëgg mooy Sonko dafa dem ñu doyadil ko ca Kigali sa Rwanda ci loo xam ne ci victime di net Assane sax décortiqué na ko nag te li nga wax dara du dëgg lépp ay kàcc la parce que da nga bañ ni nga jël njabootu El Malick yépp dugal ci biir cabinet El Malick parce que bëgg nga yàq bëgg nga yàq dem créer ca seen YouTube di pap ale pap alelu te yow doo pap bay ale parce que loolu lépp dafa ko parce que xol bu bon iñaan mais bëgg a déstabiliser doo comprendre lan la quoi da maanaam benn jamono doo comprendre lan la yow pendant presque depuis mbiri Adji Sarr ba tey jii ñu ngi lay yónni ngay yàq Sonko sonk dem ba falu nga ni noo doo taxaw nga ni noo mais sonk moom léegi na sëgg rek maanaam mooy dóor rek du réagir du def dara mais nit mais kurpañ fu mu jot lay dal nit ku ne ngànnaay bi nga yor moom ngay xeexee. comme ñoom amel noonu boor nguur gi di ko jaay naqari dara nguur gi ne leen fay leen jeex na loolu képp la Mamour Ibra Kane day politique keneen ak keneen nan assumer ni dañuy politique ñu jàppee leen comme ay politiciens di leen traité comme ay politiciens maanaam di leen traité comme ay politiciens ñi nekk patron te yem ci seen liggéeyu presse ñu bàyyi leen ñun yem ci seen liggéeyu presse mais mënuñu jëfandikoo presse bi pour def politique. pour opposer wu ci place su Amadou Ba opposé wu ci place su Macky Sall li opposition bi waroon a def jàkkaarloog Sonko ak Jomaay ñoom ñu leen koy defal ñu bëgg Sonko ak Jomaay nangul leen ko déedéet duñ ko nangu loolu tax waawal fajri gi ñoo yeey bañ cee bokk ci journée sans presse bi te man sax tuddee ma ko journée sans presse journée sans paraître laa ko tuddee parce que y la presse. assemblée nationale la fa nekkoon presse la solution bi liggéey nan croc presque quinze mille ci direct bi presse ngi doon dox demal ci réseau sociaux demal feneen ak feneen mi ngi doon dox xoolal Walfadjri ñi ngi doon dox gars yi ñi ngi doon liggéey demal 2A TV demal feneen ak feneen gars yi ñi ngi doon liggéey kon du journée sans presse mais journée sans paraître la mais presse mi ngi doon dox parce que ñun ñi ngi doon liggéey léegi nag bu doon ni loo xam ne intérêt général la pour la presse condition de travail des journalistes na lañuy def ba organiser convention yi ñu xool la convention collective na lañ koy lijjantee ñu xool précarité bi ñu dund na ñuy def ba mu dañ na lay fexe ba état bi mën a dimbali les patron pour que ñu mën a suqaliku parce que benn entreprise bu tëj ay doomu sénégalais ñoo koy yëg loolu kenn ñaanu ko yàlla man bugguma ku tëj nguur gi bu mënee woyofal ñu toog waxtaan mais lépp ci neex deret mais munoo nekk presque bëgg a porte le combat de l'opposition wala nga bëgga euh, nekk sa ginnaaw journal euh, télé wala rajo bëgg a xeex nguur gi bëgg ku la ci jàppale. bëgg ku la ci jàppale ñun tey jii patron de presse leen gën a jege nguur gi parce que nag li ñu patron de presse di jariñ nguur gi jariñu ñu ko parce que balaa may toog fi am na fu ma jaar te daan naa fa am dara. te ay patron ñoom ko doon defal kon danoo am sentiment de reconnaissance envers eux mais ci dëkk mais ni nga koy defee nii du nii woykat bi doon wax yoon wi nga jël baaxul ku la ko diggal dalay nax mais lii ñuy doxe baaxul te duñ ci am ndam léegi nag ñu tëj ak euh, Ngagne Demba Touré dafa wax ay propos gars yi jur polémique mooy ñi gëm projet bi bëgg projet bi ñooñu lañ war a démb sax gis naa ci pam ngañ mi jubbantiku mais loolu muy wax loolu mu wax ne ñi gëm projet bi lan war a defal promotion àlla la base ñu mën a sàmm parti bi mais aussi mën ko doxal parce que Pastef am na ay nit yu ko mat ak yu ko mën li mu wax dëgg la loolu nag wax na ko ci kaw mais moom la waa Pastef yi bari di wax ci suuf am na benn vidéo Jamil Sané bi daw presque loolu la ci wax boo déggee galan waxu Abbas Fall presque loolu lay wax ak ñeneen ak ñeneen parce que Pastef nommé nañ ministre yi nommé direction yi nommé ay alliés nommé mais nag nomination politique aussi baax na li ngañ dem wax baax na parce que Pastef dafa dem ci ay échéances parce que nga jël nguur maire yi collectivité territoriale yi yoroo lépp nga dem ci député yi amoo majorité nga war a dem ci ay élection ci ngu ci nguur goo xam ne presse bi nga ko séqal may ñu la état de grâce te opposition bi am nañ alal ni ko Waly Diouf Bodiang doon waxee mais ñooñu tey nga war a séq ak ñoom te politique c'est à la base parce que tey Pastef bu élection jotoon la doon am du amati de mooy nanu cotiser nanu cotiser ku ne génnee wala ñu def Kopar Express ak yooyu parce que nag boo nekkee ci conquête pouvoir ku ne mën na def sacrifice mais boo nekkee dans l'exercice du pouvoir mbiri daa am nu mu war a demee bu bu ma nee la tey jii ci xibaar yi ma am yenn permanence su Pastef yi bu weer deewee dañuy am problème mu di ko fay permanence bi nekk Kër Massar Sud exemple la ci am na yeneen bi ñuy organiser fii ci Grand Théâtre pour collecter fonds yi u des problèmes waxuñu ko ci kaw nag waaye yëg naa ko loolu mooy wane ni base bi il faut que waaw Pastef sur le plan stratégique ci wàllu politique mais ñu fal seeni nit pour que ñu mën a dundal base parce que base dañ ko suuxat parce que du ñëpp mën a falu mais du ñëpp mën a nekk au pouvoir mais na leen gérer mais tey jii boo falee ñoo xam ne bokkuñu Pastef te gëmuñu projet bi wala politique guñu mais ñooñ bu ñu dee fay ko 5 millions lan lañ ciy jariñ parti bi mën nañu jariñ réew mi mais lan lañuy jariñ parti bii di Pastef te Pastef mënatul def collecte de fonds mënootoo nekk pouvoir waa diaspora bi jege di di dajale di la jox base bi di dajale di la jox yaa nekk pouvoir kon tey jii sur le plan stratégique ci wàllu politique da nga war a fal say nit pour que boo ay échéances ñëwee ñu mën a suqali base bi dundal base bi. mais à la base il y a beaucoup de frustrés ci Pastef dama lay jox exemple Kër Massar Sud Kër Massar Sud amul benn nomination amul pourtant am na ay cadres am na ay ñu bari ñu ko nekk ñoo xam ne tey ji mën nañ apporter quelque chose mais bu ñu demee ba seen i permanence ñu am problème di ko fay y problème des fois am ñu ne maire bi mais <laughs> mooy loolu tey y a des frustrés y a am na ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp ni dara doxul. léegi na boo falee quelqu'un boo xam ne à la base yàgg na di taxawu parti bi ci jamono yi parti bi mettee jamono bii lépp diisee kooku tey boo ko falee mën na ku feebar mu faj ku jaaxle mu lijjanti la ku bëgg a fipp mu téye la parce que nag li gars yi di wax naan Pastef Pastef mais man dama jàpp ni Pastef ay Sénégal rek ñoo ci ne ah jikkoy ay Sénégal lañu yor jugewuñu feneen wàcc dëkk bi. ni muy amee mer ci yenn parti noonu lay amee peut-être pour le moment opposition bi ñoo leen di dimbali parce que taxawaay bi ñoom buggaan taxaw ak ñeneen dafa tax Pastef ku bëggoon a mer sax doo mer ku bëggoon a yëngu sax doo yëngu waaw foofu lañuy ñuy ku bëggoon yëngu sax doo yëngu loolu daal li ngañ dem ba wax ci kaw ñëpp di ko ngumtoo di ko xurumtoo mais loolu am na ñu koy wax ci suuf te am na par de vérité par de vérité te loolu waa Pastef fii nañ ci bàyyi xel surtout ci nomination bi surtout ñu ni contrôler seen base ak ni ñu koy organiser mais base bi bari na ñoo xam ne gisaguñu seen bopp surtout les jeunes yi nekkoon na euh, ci ci combat bi bari na ñoo xam ne tey jii mënuñu ko wax mais mer nañu te loolu yëpp lu ñu war a xoolaat la kon euh, di gërëm ñëpp di leen sant di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq les patrons de presse. <laughs> dëgg neexul nag wax na leen ko mais on n'a contre personne Omar Bun Xataab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi di gërëm El Hadji Modou Diouf Abdou Toob ak Ablaye ci régie bi kon na beneen alxamis incha allah ñu dellu siwaat